jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi am mbégte nag euh, dellu seeg yéen seen ñaareelu xaaju seen émission bi di wareef télévision Futur Média seetu askan bi loolu foor na ma bi <laughs> ànd rek ak coca cola averti woon naa vieux ne ko mu indi ndox waa déet xam nga coca moom waaw léegi nag apalaay ñoom ñëpp la ñu indi ndox wax naa man sax man sax léegi damaa bëgg a commencé di diwoo coca mii ah waaw ah doy na waar daal def ko sama tocc mi ko kaay ah <laughs> loolu sant ñu la ko damay waajal màggal <laughs> Fatubaakalla <laughs> macha allah ànd ak Coca Cola bi nga xam ne moo ñuy gunge ci moment de bonheur yu nekk Fatubaakalla macha allah. Mhm. di fàttali rek euh, dañuy laajte euh, indépendance de la justice ici Sénégal ndax réalité la wala fiction la ànd lu ci mën a nekk daal yéen la delloo kàddu gi bu leen fàtte ni Zey mu ngi ci permanence téléphonique bi 88 628 22 22 88 628 65 65 88 628 04 05 ah sooy wootee bitim réew nga def 33 841 22 99 Facebook Wareef léegi sëy dañuy def tour de table ñëwaat ci yow laajte. Mhm. maître euh, ñu ngi wax affaire li nga xam ne mooy PV yi. Mhm. d'audition. wax ci affaire certificat médical yi wax ci ñi nga xamante ne nekk nattoo nañ leen ñu jaar foofu ba nga xamante ne ay avortement clandestin lañ doon def yooyu yëpp nga xamante ne ñooy croupir ñoom ñoo ñoo feesal est-ce que xam nga ñoo feesal prison yi ñoo xamante ne amuñu avocat avocat ya nga xamante ne nekk dañ leen ko commettre d'office léeg-léeg ku ci am tuuti conscience sax mooy ñëw am na ci ñenn ñoo xam ne dañ leen di bàyyi foofu fàtte nañ leen sax ñoo ñooñu toog seen mbokk yi duñu xam fu ñu nekk jàpp nañu ne baadoola lañu te ay baadoola dañu war a croupir ci prison yi ndax amuñu loxo bralon bu leen fa gindi yëkkati leen fa lu doy waar tàddigéen ci ma li nga wax yëpp dëgg la mhm. lu doy waar mhm. Mhm. mais nag euh, ñun au niveau de l'association des jeunes avocats du Sénégal ñi ngi comment ñu ngi ci ay jéego maanaam ñi ngi dem ci prison yi léegi di def recensement recensement ñi nga xamante Euh, defal nañ leen interrogatoire au fond ba pare. Mhm. ñu seet nan lañ leen mën a defal demande de mise en liberté provisoire. Mhm. ñoo xamante ne ils sont en attente de jugement. Mhm. ñu seet nan la ñuy accélérer seen dossier. Euh, également actuellement nit yi ñuy def ñi ngi def ay consultations gratuites. au niveau des prisons. dem ñu recenser yenn prisonniers yi. ñu gis leen wax ak ñoom. ñu wax ñu seen cas mhm. ñu seet lan la ñu mën a def mhm. jéego yi ñu mën a def mhm. pour dimbali leen ci loolu en l'état actuel euh, euh, loolu loolu rek la ñu mën a ndax da ngeen constaté waaw da dem visiter constaté te comme on dit pour l'instant nii euh, loolu la ñuy ñaax état bi mu dimbali système judiciaire bi rétablir politique pénale bu baax au niveau de la justice pour que comme on dit sénégalais yi commencé gëm justice gëm gëm ko gëm ko parce que li ngay wax situation bi yëpp looloo ne mm-hmm. looloo nekk dëgg la amul dara lu ma ah, déedéet mu nekk lu doy waar mami lu doy loo xam ne dañuy yóbbante waaye lu ñu yóbbante dañuy yóbbante parce que taa diggéen mhm. ñu demee ba nit ki di dund cim réewam te sañatut a gëm la nekk cim réewam mhm. metti na mhm. li tax sañatuñ koo gëm mooy kenn ku ci nekk dafa am foo jaar am na ci ñoo xamante ne dañuy dem a dem a dem ba ci biir ñàkk ci xaalis ñu ne noonu avocat bee ma nax ñu ne déedéet juge bee ma ne faaw mu moos léegi ci diggante boobu guerre bi ñuy wax ci seen biir tamit ce que demul ba metti leen yéen avocat Euh, guerre bi corruption. guerre bi corruption au niveau de la justice. Euh, ou bien euh, avocat yi non non. ci justice bi lañ koy tudd mais parfois nit ñi dañuy wax ne mën na am que ne juge bi yëgu ko xëy na avocat bi la mais gëw ma ne avocat bi la parce que guerre su demee ba am rek xam nga dafa am benn coow bu fi amoon sénégalais du fàtte dana jéggale mais du fàtte am na benn coow bu fi amoon ba ñu sanctionné woon ay nit am ci ñun ci dàqoon am ci ñeneen ak ñeneen man xam naa ci ko wóor mais dafay dem ba guerre bi moom dafa nekk ci biir justice léegi ba koo wax mun la soo amul enveloppe amoo terrain boo may amoo oto boo may bu dem mais est que avocat sañ ni ñëw fekk client ne ko fu mu nekk nii sa dossier Euh, carabine na su fekkente ne juge bi day laal su fekkente ne daal am nga luñ ko mën a jox nga mu ñu jox ko ko comme ça euh, jugement bi kii parce que ñu dañuy dégg yooyu dañ koy dégg nit ñi dañ koy dégg waaw mais loolu wax dëgg yàlla ah. mosuma ko gis ci avocat lenn nag mën naa ko wax hmm. mooy yenn ci seen bopp ñoom ñooy dem démarché seen bopp hmm. mhm. maanaam ne leen fi ñukk waaw romb leen des fois dafay am hmm. ñoom ñu ñëw ne la non non non dinaa ko régler dinaa def nii dinaa def naa mais hors la présence de l'avocat mmh. parce que yooyu moom parce que par principe yooyu dund leen ci. parce que waaw principe euh, mhm. ñu ci yooyu. man de mhm. dunduma ci te ñi ma xam ñu ba dundu na ci. Mhm. formé ñu également ci loolu. mais tamit est-ce que su guerre amul woon dëggantaan. ci suñu justice. est-ce que nit ñi ñeme nañ ko yor di ko ŋalt ŋaltee nii. peut-être dafa am luñ ci gis moo tax. loolu la loolu la loolu laa doon wax sax ma tey na xel. tey na xel nit ñi dañuy ñëw di la wax. wala nga toog dégg wala nga xaw xalaat ne que ah lii de c'est pas normal. Mm-hmm. ñi koy waxante dañ koy waxante. Mm-hmm. parce que yenn saa yi nga gis benn situation benn dossier boo xamante ne. Mm-hmm. dañuy ngawti ngawti ñëpp di wax naan ah lii de lii moo ci xew lii moo ci xew. mais bon dañ ci yem comme ñëpp. mais bon waaye du loo leen di teg bët. voilà du ñuy teg bët loo leen di déggandoo en même temps dañuy wax ba pare kenn du démentir. Mm, kenn du démentir léegi man am na leneen lu ma bëgg a laajte. Euh, boo seetloo bu ñaari nit war a dem. tur après nga jox ma sëy kii am alal kii amul alal mm. booy seetlu lu ci bari ki nga xamante ne moom lañuy ñuy wooy borom lam bu diis bi wala borom daraja ji moom du musa teew tribunal keneen ki mooy jaabante rek di dem ak ñëw renvoyé nañ renvoyé nañ renvoyé nañ leen loolu nu ngeen koy dundee waaw teew euh, boobu moom waaw loolu loolu loolu dafa xaw metti mais mm-hmm. euh, loolu ci rôle procureur la mm-hmm. parce que loolu la ñuy wax ne parce que peut-être procureur dossier yi ñooy bari mm-hmm. ba liggéey bi war a war du du du du dem normalement. Mm-hmm. maanaam normalement. Mm-hmm. dès par exemple en matière de flagrant délit. Mm-hmm. bu dee euh, euh, euh, defal nañ la décer décer nañ la mandat de dépôt. nga dem dañ lay fixer benn jour d'audience. jour d'audience boobu normalement. ci yeneen juridiction en fait Europe wala yooyu. immédiatement partie civile bi dañ ko war a yónni citation mu ñëw. luy tax renvoi yooyu yëpp di bari. parce que citation bi lañ dul def. pour partie civile bi teew. et puis des fois également te ñàkk def citation boobu loolu mm. loolu loolu kii fotu euh, kan la. au niveau de, de, du parquet. ok parquet des fois moo dul joxe citation yi à temps. Mm-hmm. moo tax chaque fois nit ki naan dañuy renvoyer dañuy renvoyer dañuy renvoyer. Mm, te loolu tamit. loolu du affaire avocat tout à fait nga xamante ne mën nga tëdd rëbës wala tëdd kap. voilà. Mm et des fois également dina am euh, parti civile bi également dina na bàyyi ma bàyyi ko fa tuuti dina jot citation sax mais def exprès bañ a ñëw. parce day fekk muy borom doole. voilà mhm. mais su bañ a ñëw ba yenn saa mu envoyé avocat am. Mhm. wala yooyu mhm. bon c' est vrai que. kooku tëdd rek. kooku tëdd rek kooku tëdd rek kooku tëdd. Euh, Zey euh, allo. balaa ñuy dem ci rubrique fësal mbaax Zey. waaw tata Degen. waaw euh, coow li fu mu foofu. ci tata man information yi ñu may jox. <laughs> waaw ak témoignage yi may am ci page Facebook bi ak téléphone bi tata Degen. waaw lu yéeme fu mu nekk nii xam nga lu xew. ah wax ma yëpp nag. waaw tata Degen damay ragal nag. waaw loolu lay ragal waxal yëpp jël si ma. waaw dee kenn du la jël si waxal yëpp moom. Ah. tata Degen bàyyi ma am yu ma nëbb rek ndax yëpp ba ma ko waxee léegi ñu jël si. la jël si waxal. xam nga lu gën a ci menace la ñuy waxal waxal waxal rek tamit de daa ngeen daal li tax mu ragal bokkul ak démb ki la doon oowee rëbës yore téléphone bi bokkul ak kooku de kon kii am na keneen ku yor téléphone ci biir rëbës kii ah, keneen la non non kii ah. rëbës parce que rëbës tamit nag bu ñu demee ba am Facebook ak internet tamit dina yéeme ah si ku yor téléphone mën nga am yëpp ah. parce que léegi ah bien sûr léegi soo dugalee cinq mille francs crédit nga am yëpp c'est mu waxee. parce que picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf. mais mën na nekk kii dama ragal tata dégg ci hmm. système bi lay liggéey. Hmm. la ñu jàpp di seetaan pour xool ban prisonnier. ah policier yaa ngi jàpp kii. Euh, <laughs> waaw ayca dama fi mu ne nii ci commissariat maa ngi nuyu waay takk der yëpp. waa police di leen di nuyu waa police di leen nuyu di leen sargal doomu <laughs> policier laa bu leen ko fàtte sama jëkkër ancien policier la ay door yaa ngi dégg baax man seen biir laa ah, police laa yaroo ay dóor la ah, ay dóor la loolu daal la wax nee na ñemewul woote ndax su wootee tam tam ñu xàmmee baatam parce que fi mu ne nii commissariat yi ñu ngi jàpp ah. euh, li nga xamante ne moom mooy tey seetaan waree jàpp ñiy woote damay ba ñu xàmmee ba bismillah waaw loolu la wax tata dégeen euh, te nag jox fa joxe ay information yu graaw ba ci ni ñuy joxee néeg ya ca biir prison ba nañ koy jaayee mm-hmm. ba ca courtier ba koy joxe ba ci tur yi tata dégeen ah. waaw yii kii mu ngi ci digg ba. kii exactement moo tax ma ne la kii dama ragal. Mm. kuy liggéey la ci ñoom ku leen jege sax te taa kon néeg yi suñ niñ koy joxee rëbës selon néeg yu baax yi diil la. diil la maanaam sa day day day joxe ci biti. waaw de te dafa am courtier sax si biir prison bi. waaw koo xamante ne moom mooy régler. moom ah. mooy waxaale comme courtier nu ñuy def rek booy ut appartement mbaa mbaa mbaa. pour ñu dugal la chambre bu baax bu aéré boo xam ne bëriwul kuti kuti. waaw mhm. te taa kii dafa wax nag ba wax ma tur. Mhm. kii ni diw mii def lii. waaw bul wax tur yow waxal nim la waxee système bi tey tur kay. waay Zey waay Zey na gàtt Zey Zey Zey na gàtt rek waxal lim la waxee yow tamit. cuuga caaga taa diggante taa diggante ma ñëw ci beneen témoignage rek. boo boo xamante ne am zi zi bi bëggati ko gis yow kay nettali lim la wax am na kuy ceeb joxe néeg ak yooyu waaw wax waaw am na kuy kuy joxe nekk wax na turam mettu nee na kenn du la laal jottali rek mais defoo benn infraction taa di gën garaawul bul wax tuur rek bul wax tuur waaw moo wax naa lépp di pratiquement waa ñeneen comme ñu ngi di waxtaan ah. xam naa fi léegi suba dina joxaat yeneen information parce que ba léegi ñu ngi continuer di waxtaan li ma li ma li ma bëgg xam mooy sa famille ci biti ñoo joxe xaalis bi pour nga mm. am néeg bu baax wala yow yaa koy joxe mun nga ko joxe comme sa famille mun na ko joxe. mais yow daal courtier bi mi ngi ci biir prison bi te yow lay waxal. ok yaa yaak moom yéenay négocier. Mhm. nga am loo joxe. ngeen waxaale daal bu juboo léegi moom mu dem informer boosam parce que courtier bi ci biir prison bi moom dafa am ku ko supérieur. supérieur bi du traité directement avec les prisonniers. c' est le courtier qui traite. léegi su traité ba pare. ba ñu wax li ñuy waxante lépp. boo naree fay fay wala bu say mbokk naree fay andi la yow nga joxe léegi moom mu dem rendre compte boos ba. après nga déménager. nga déménager. fu la neex déménager. fu la neex nga déménager waaw fu la neex en fonction de ton budget rek. Mhm. waaw nee fu la neexee déménager Cap Manuel wala euh, hôpitaux ba Dantec wala boog feneen daal ci biir. waxuma Cap Manuel na <laughs> zey zey tey tapet nga. waaw indil ñeneen ñi indil ñeneen ñi. kii moom ku waxee xol la ci page Facebook bi euh, euh, moom duma wax turam tamit donte bind na ko. Mhm. nee na moom papa mi ngi kaso. ndax li mu def nee na foofu tuuti ñu indi ndox yi mhm. mooy dafa xuloo ak euh, benn takk der mhm. te kooku nee na ci biir xuloo bi kookoo ko tooñ kat de mais tooñ nañ ko tëjlu ko léegi instant bi parce que papa mi ngi kaso bàyyi njabootam ci biti mhm. nee na injustice su Sénégal dafa metti te sénégalais dañoo ragal takk der yi tata diggéen waaw nee nañ dañ leen ragal ba nga xamante ne daal lu yéeme ba euh, dañu dem ba nit ñi sax amatuñu torop confiance ci seen justice su réew kenn mënatul au fait soo amee sa problème sax hmm. danga nga koy jéem a régler yow hmm. justice moom ngay mujjee xalaat parce que hmm. gis nga ne yow kat boo fa demee doo am dëgg waaw loolu la wax tata dégg am naa tamit gagnant euh, c'est une femme da ngay wax gagnant dépense su maître ku Coumba Diop nga ko jox parce que ku fi toog joxe dépense d'accord waa ndax jox naa ko dépense su maître foo ko joxee Yacine fay ah. dëkk ba skat urbam gis nga may nga ko dépense waaw maa ngi demati nag yow lan euh, mooy sa plat préféré man bu weex bëgg a jóg suul. s'il te plaît a jóg suul. s'il te plaît rek mami rek doy na. waaw boroxe boroxe ak suppu kànja voilà. wax ko mu togg ci boroxe wala suppu kànja dégg nga. d'accord taa dégg maa ngi dellu na su fekkee amaat naa yeneen information wala ay témoignages. ma ah. ñëwaat su dee. yow ragal nga ragal nga sama kanam bi yow yow ki lay renseigné. yow Vieux Diouf may ma ko gros plan. waaw léegi yow ki lay renseigné. waa déglu ma si suuf. dellul ci kooku. nga laaj ko ay yeneen détails maanaam bu waxtu waaye na la wax ay détails yu xumb demal topp ko ba bël ba demal ba sës dañu naan bul de dem ba bël ba waaye demal ba bël ba xoola dinaa ko topp ba sës tataa dëgg gis nga bu ma demee léegi-léegi dama koy laaj numéro téléphone am sax mu jox ma comme ça su ma génnee ma woo ko bu subaa ma indi information man jaaral ci yow man mag laa man bu ma jox dara <laughs> man bu ma jox dara man mag laa yow del del def rek del ruube man mag laa dégg <laughs> wala nga jox ko mami mami ak ndoy baan am nañu fit man nag man naa naa nekk ci wet gi nii rek dégg d'accord vieux Diouf kon li ñuy def euh, maître xam nga dañ fi am rubrique fësal mbaax mm. boo xamante ne euh, jéem a topp mag ñu baax ñi fi nekkoon ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi desandi euh, rek comme ça su ko defee xale yi am ay référence mm. bii paa nag dem nañu seete ak lu kuntiyu ah, fatabakàlla masha nañ dem seetaan di ñaan suñu borom bi ñoo di fan yi wéral cër yi waaye tamit ñi nga xam ne yàlla jël na leen si coobareem mu taas ñu ci seen barke ñu dem léegi dellu si ba tey seen télévision Futurs Médias seetu askan wi à tout suite ñu fas yéene wax ci kilifa bu mag di cheikh bu Mouhamed Kounta ñu gën koo xam ci Baye Boubou yàlla dogal mu bokk ak benn baay rakkam ñu sédd ma it Baye mu yar ma may fas yéene di wax ay kàddu ci ay jikkoom ci li xam ci moom yaatu na nag ay mbiram waaye lu ci waay mën a wax danga da ciy wax li ci des nga bàyyi ko ndax moom yàlla rek ko xam ñu ko sàkk eh, li ñu xam ci moom mooy nit la koo xam ni ku sàmmoon ak shariatul islamiya ku jàng alquran la xaafal ko te it sàmm na la mu jàng ci alquran toppatoo ko di ko def nañ ko bëggee ak ni ko yàlla santaane yàlla dogal na bi mu ñëwee Njaasaan toog ci Njaasaan teg ko ci boppu xeet bi ni mu yore woon xeet bi wax dëgg yàlla ci sharia rek la tegoon ak sunna bañ na balaa tëdd ñëpp ci dëkk bi day tëdd bu guddi jotee day boot loxoom topp ci dëkk bi di wër ba xam am na kenn ku tëdd wala tëddagul kon càmm gañ ko joxoon li naan kullukum raa'in wa kullu ra kullukum mas'ulun an moom mi ngi ko doon dox ci njabootam bi nga xam ni yàlla dénk na ko ko te jikko lu rafet la yore woon ndaxit lépp lu nekk ci loxoom njaboot gi ko bàyyi ci loxoom lépp lu mu yor rek daf koy joxe yàlla dogal na ni hadiya dina koy jël waaye bokkul ci lu muy lekk ndax lépp lu mu jël ci hadiya mi ngi koy delloo ci jullit yi ak naari gànnaar yi la muy lekk ak la mu yoree këram mooy la nga xam ne mooy mooy ñàkk boppam ak ñaq ay woy ñàkk ay njabootam moom la yore këram nit la koo xam ne sunna lañu xam ci moom ak mbaax ak topp sunna baay bu li ma jëkk a saate ma ñaan yàlla saar gi ma mën koo mokkal mooy nee na ma Bécaye Fall buy tooñ kenn te ku laa tooñ na ko jéggal mais loolu ku ko ku ci sax sa àdduna rafet sa àllaaxira rafet nit ki nag sax boo waxee ni baax na daanaka dootoo ci mën a wax leneen ndax leen baax baax rek la waaye ni mu doon dundee ak ñi nga xamante ñoo di ay magam te mu fekkee seen jamono muy sëñ Sidy Lamine di borom étage bi dafa doon dund ak moom dunduk taalibe ak sëñ ku defoon way jur nekkoon it ab taalibe ak yeneen magan yi nga xamante ni dañu fi nekkoon ba seen Sidi Yaxya mi fi nekkoon dunduk taalibe la doon tudd dundoog moom li ngeen fekk ma moom la daan dundee muy alxuraan foo ko fekk mu ngi jàng alxuraan yàlla dogaloon na it am kàng la daaw ko xool comme ni ñu koy xoolee ñun ndax ñun mokkaluñu ko waaye moom da ko fu mokkaloon ci lay nekk suba ak ngoon ku jàng alxuraan ku mu bëgg la amante woon na it ak kilifa diine yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon muy sëñ Abdou Aziz sëñ Saliou moom la yoonoon a tàmbel jamono seen diggante taxoon na lool rafet nañ way juróom wu góor mooy Cheikh bu Mouhamad Kunta di way juróom moom mu wëlbatiku nekk caatu way juróom loolu nag nekk ndono ci moom bul fàtte ni way juróom wu tedd wa moom it moom mooy caatu maamam Cheikh bu ama beneen bi ci des seen turu yaay yaa bokk kon hasard amu ci moom it way juróom wu góor yaayam ma nga tudd ma ko du jóg mu gane àddina ci ginnaaw way juróom ñu tuddee ko way juróom mu ñëw nag doon ko faf teel a mokkal alquran lool fàttewu ko ba bi muy am 92 ans te loolu mooy li mu turu yoon ci yàlla Muhammad loola it nekk loo xamante ni warees na cee taxawlu diggante dundam googu lépp li alquran santaane ca la nekk mësu caa jóg ba ni mu génnee àddina diiru lim fi nekk teel a mokkal alquran lool alquran jooju la mës di jullee moom lay naafila kaamil bi fa tabaarakallaahu yar ci njaboot waxuma la mu doon xaafis waaye ñu bari mu def leen ñu nekk ay xaafis ñu wax ci rek benn bu dul dàkk bu ñëpp mën a teg bët ak yeneen waaye dañu ko lim pour mu yóbbaale ñi ci des ku mel ni Cheikh Papa moo ko jàngal alquran ba mu ne xaafisul quran mu jël kër jënd ko ni ko donnale wu ma ko mu nekkoon nit koo xamante ni ab tab la woon lu mu yor da ko daan joxe ba bi muy tëdd ci lalu hôpital ma ngay xool dem leen jox diw jabaram am na doom dem leen jox diw dem leen jox diw dem leen jox diw ku nekk ci sukkura di def loolu ma fekk ko fi tàkkusaan mu ni ma Cheikh bu Diop kaay ma ñëw mu ni ma jëlal baat yi nga koy wax foo ko wax dinañ la fonk dinañ la jox cër ci yërmande bi mu amoon te li mu lay wax ki dend ak yow du ko xam te yow boo fa jógee jox na kër ki dend ak yow lu mu la joxul kon ku daan toog la rek ku ñëw mu jox la noonu la ko yàlla bindee moo tax ma wax ni demuk bàyyi astu du luy dañ ci sam xel nde man bàyyi bu laa miin doonay maam bu naa ma da daan bind jox ma da daan wax ma bind ngir rek bëgg ma yokk doonay maam bu naa ma bay bu jox na may baat su may way ba wax ko samay noon di jóoru moom Seydina Muhammad la ku daan jéllalee léegi te daan jéllalee léegi ku sàmmoon ngoram la doonay maam Bunaama jullit yëpp la fonkoon amul xejj ak seen ci mboolem tariqa doonay maam Bunaama mos nay toog fii ci at yu mujj rek mu ni yéen su may doom bu ngeen ma yaakaaree ni bu ngeen fi bu ma fi jógee di ngeen fiy doon dara fii dara lu fi doon amu fii fii li ngeen may doon amu fii am ma ko de ndaxte lu fi ñëw ah dama koy séddale dama koy jox benn aadama yi kon na dem leen ngeen lu jëm leen jàngi ngeen fexe am waaye nag bu leen yaakaar ne suma bàyyi ko gërëm ngeen fi bàyyi dara de te loolu mu ko waxee tamit noonu la amee de ci at kara bu mu génnee àdduna daa tombé oon sa jamono gàmmu gi gàmmu gi doo rey tas rek mu am ni fi bàyyi waaye wallahi bu fekkee ne du jamono gàmmu woon ñaar dërëm doo ko fekk ci loxoom daanañ doon toog fii dépensé dina ko tee du ko yore. waaye nag alhamdulilah rabbil alamin balaa tisbaar wala balaa kii rek mu am xiiwal bu ko dikkal doo xam fu mu bàyyi ko waaye noonu tamit balaa mu dindi dépense kër gi tamit noonu la koy noonu la koy séddale benn yaay damay jox lañ ko comme ko Cheikh bu jox waxee léegi. ku muñoon la ku daan def lu baax la ci mbokk gi ci wóllëre gi ci taalibe yi newoon na itam koo xam ni daan na xettalee te bëggul ku ko wax. moom daan na te bëggalu ku ko wax naar yi daan jóge ca sunu kër maam ca gànnaar di ñëw xam nañu ci dara kon mbiru bay bu ma ngoog wax na leen ni mën na gudd mën na gàtt waaye daal baax mënoo weesu nu nit ku baax doone nit baax nga fa la wax mën a yem ndax amul lu féete kaw baax féete kaw baax ñuy remercier bu baax suñu baay boobu euh, sëñ Ahmed Bachir Kounta mhm. la macha allah baat bu am solo amul lu féete kaw baax ba tax maître li ñu waxee rubrique bi euh, dañu ko instauré pour di indi ñu baax ñi mhm. ndax tamit xale yi war nañu am ay référence la macha allah ndax suñu demee ba réew mi mu mel ni référence de férir baax na ñuy jëli ñu ni mel di ko teg su ko defee ñuy sukkandiku xam ne baax am na solo te amul lu ko gën a féetee kow comme ni ñu koy waxee. lu ci sa impression ci rubrique fësal baax balaa ñuy tàggoo. waaw léegi euh, yaakaar naa ne léegi effectivement euh, surtout xale yi jigéen ñi. Euh, perte de repères yi bari na. Mm-hmm. donc bu dee ñii dañ leen di indi. Mm-hmm. pour ñuy. ñuy rappeler toujours que quoi qu'il soit toujours am na fi ay nit ñu baax. Mm-hmm. ñoo xamante ne dañ leen war a roy. Mm-hmm. dafa nekk donc euh, initiative bu baax. dëgg la parce que loolu bu dee euh, bon suñu doom yi xamuñu torop ay ay Yaasin Buuboog. ak mm-hmm. euh, talaatay ndeer ak yooyu yëpp ce qui est mais yooyu moo lay wan nekk jigéen quand même. dëgg la waa ak ñeneen ak yeneen. dëgg dëgg dëgg la. yi baax na ñu koy fàttali. macha allah tàggool rapidement. waaw maa ngi waxtu maa ngi remercier ñëpp. ndeysaan di la remercier ta dégg ci li ma invité. ndeysaan ndeysaan mbégte gu rëy lañ ci euh, waaw donc euh, di nuyu samay waajur. Mhm. donc di nuyu sama borom kër sama njaboot suñu yaay ji. waaw <laughs> di ko ñaan di ko ñaanal kamara euh, yi la dundal. Uh-huh. ah yow itam yaa ngi ci biir kamara yi. waaw ah, li ñu bokk bëri na de. <laughs> macha allah yàlla may la wér-gu-yaram ak gudd fan. nga ba fekk sa njëriñu set ci. ndeysaan amiin di <laughs> <laughs> ñu ngi koy defal mention spéciale. waaw macha allah di xam ne daal yow daal. Mm-hmm. yaay ah, yaay avocat wareef léegi def nañ la avocat wareef. <laughs> ama bi def nañ ko avocat wareef. xam nga xam damay gis bëgg la wala ma gis nit rek maandu ci yow. moom nag maa ko bëggal sama bopp moom. macha allah macha comme damaa mën a tooñ maa ngi sa ginnaaw mami tàggoo ci lépp rek. Ah, delluwaat di tàgguwaat waa Sénégal gépp di wax ne nag thème bi liñ ci jublu woon mooy. Ah. xëy na mënuñoo faj lépp. Mm. waaye ñu yëngal ba ñu gëstuwaat loolu lan moo ci nekk. Mm-hmm. di wax ne nañ ci bàyyiwaat xel nañ ci bàyyiwaat xel ndax justice dafay loo xam ne mënuñu tàqali ko ak moom. Mm-hmm. te faaw ñu ànd. waaye nañu xam ne daal mën na toroxal nit mën na gaañ nit mën na teg nit loo xamante ne war ko ko teg. delluwaat nag di nuyu fa nga xamante ne fa laa bokk ah. maa ngi leen di ziar lu baree bari di nuyuwaat Ndiwi Ndiaye la yow moom <laughs> maak yow tëni bi da koy summi rek joxoo ma sol dugg ci dëkk bi di enquête yaa booy delluwaat di la bëgg <laughs> wallaay wallaay bëggee bi fii la ëppee delluwaat di ziyaarat kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi nee naa di sàkku ci ñoom ñaan waaye delluwaat di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne ah, ah, yàlla ñoo di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñi jàpp ci combat bi yëpp xam nga a baax euh, Dakar mi nga xam ne suñu borom bi jël na ko ci coobareem fatabakàlla macha allah ñuy santaat yàlla bu baax a baax di julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko jaale réew mi yëpp yàlla suñu borom bi yéegee ko ci firdaw si ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko jaale spécialement Roqaya Touré mhm. Roqaya Touré maa ngi ko koy jaale bu baax a baax ak euh, justice bi ñëpp di la ko jaale bu baax a baax a baax maître tey moom euh, fonk ñu rek moo tax nga toog fi mhm. loolu xel meek dara newu fi waaye ñu santaat yàlla julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam a ni fa tabakallah macha allah dinañ dem New York euh, nuyu fa soppe yi nga xam ne ñu nga toog di ñu seetaan yépp ñoom ami baaji sama yaay doom ji nuyul ma ko fa tabakallah macha allah su ma nuyoo euh, euh, foofu Washington la xama uh-huh. taxaw tuuti New York uh-huh. nuyu ñoom ami baaji uh-huh. nuyu ñoom Adja Ami ja nuyu ñoom Fa Mbow ah, ah nuyu nuyu Rama Diallo Indou mm. ba <laughs> ah Rama Diallo Indou ba waaye di nga wax rek xujja tamit ñu koy nuyu waaye dem ba Washington yu fa ajaratu Ndeye Sowaaj ak Gambien yu am maanaa yooyu mm-hmm. nee naa euh, Adja Xadi bu ndaw namm naa la lool lool lool lool lool ak Adja Xadi euh, Menga Gambien yu am maanaa démb xam nga kan moo ma woo pour di ma yóbboon sa nuyoo ah, ah. ki ne cuun bu màggat Diop princesse ah yu kooku kooku xanaa xamuloo ni ajaratu ki ne cuun ndax nee nga buñ sàggalooti kenn ndax màkk daa euh, sama yaay boobu sax màggat Diop princesse dinañ def fësal mbaax dig naa ko def fësal mbaax mm. dig ko ci def fësal mbaax incha allah yal na suñu borom bi kon def dégg ak topp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alquran al karim dem ba Medina Baye nuju aja ah, nuju euh, docteur Fat Samb yaayu séex yi mu imam euh, <laughs> Aliou Cissé euh, mm. Cheikh Tidiane Aliou Cissé bu Medina Baye ñu ngi koy nuyu fatubakallah macha allah remercier Waline Fall gis ngeen ko la reine du foulard et du chapeau 534 23 20 fatubakallah macha allah boutique les jumelles ñoom ñëpp waaye mention spéciale tamit sala mbaaw yaayu petit on off nuyu nañ la kon di leen jox rendez-vous suba jërë ngeen jëf maître merci énormément merci wallaay bëggee nañ la <laughs> kontaan nañu jërë ngeen jëf <laughs>